alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xadiis bu wër këng. yonent bi nee na man laa yashkuru naasa laa mu ne ku santul nit ñi doo sant yàlla kon jërëjëfee Baay Ñas kenn doful bay wax nit ñi sant leen ma loolu kenn du ko wax ndax parce que yaay xam ne defal nañ la lu baax nga xam ne yoon la nga sant ki la defal lu baax bu jëfee Baay Cheikh Mamour Insa man damay wax sax ne yonent bi wax xadis boobu est-ce que sax est-ce que nekkul ne jërëjëfee bàyyi la doon préparé ndax jërëjëfee bàyyi dafa ànd ak leer dafa ànd ak xaal dafa ànd ak yëg-yëg da lay wóor ne sant bàyyi mooy dëgg-dëgg sant yàlla ndax feeñu yàlla ci baay moo gën a foor ci mboole mi ay feeñu ci xaalam bi kon nag jërëjëfee Baay Ñas bu ñu waxee jërëjëfee Baay Ñas su ko defee bu ñu nee alhamdulillah yàlla nangul suñu alhamdulillah ndax sant na nit muy bàyyi radiyallahu anhu kon kon suñu sante yàlla yàlla d'accord ci bu fekkente ne nag nanguwuñoo sant bàyyi yàlla nee na bon kon doo ko sant moom soo ko sante it santoo ko itam kon alhamdulillah mooy yokk jaam bi kon nag saxleen ci jërëjëfee Baay Baay Ñas nag radiyallahu anhu wax na ne wusulul jamii il maasikiina bi xabliyaa taxaqaqahu man lam yukazib bi rabbiyaa mbooloom ñi jàpp ci sama buum bi àgg nañu ci yàlla te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi dëggal na ko te moo loolu tax mu ne te dëggal na ko ku dul fenloo sama borom moom xam ngeen ne wax na ne ñu ànd ak moom ñëpp dañuy mucc bispenc dafa am benn épidémie choléra bu amoon Nigéria bàyyi waroon jóge Nigéria pour dem arabi Saoudite comme ni nga xamee tey Chine coronavirus bi ni mu fa mel ba pays yëpp a ngi tëj seen frontière ba accepté wuñu benn vol bu jógee Chine wala pays pays yi ko accepté itam nit ñi suñu wàccee rek ñu daldi leen ber daldi leen seet defal leen ay test pour seet ndax amewuñu virus bi wala déet moo tax nag bi nga xamee ne choléra bi tasaaroo na Nigéria bàyyi waroon jóge Nigéria continuer Arabie sawdit am na sax ñenn ci njaboot gi ñu ne woon nañ naxanteek moom pour bu mu dem waaye ki toogoon ak moom ci njaboot bi ne day naxanteeg baay maanaam li ñuy wax ne dafay baab baay daal pour baay topp baay dégle ko ba mu wax ba pare bàyyi ne ko jarul nga may jéem a nax pour ma toog damay dem ba nga xamee ne nag Baye dem na Arabie Saoudite ànd ak délégation bu mag fekk ñi agsi ñëpp aéroport ñu ngi leen téye pour defal leen ay test am na ñun fa téye ñetti fan sax léegi milliardaire bu ñuy wax Isaaqa Rabiyu moo ko yeneen ñaar ñoo xam ne ñoom itam ay boroom alal lañu ñu ne ñoom dañuy jël seen volu bopp am na lu ñu yaakaaroon ne suñu doxalee noonu ñoom dañuy ñëw rek jàll duñu am problème foofu waaye ñi ànd ak baay ak baay ci boppam ci ay aéroport bi dañu toog rek dégg ñu ne ana Ibrahima Niass ak ñi ànd ak moom ñi ànd ak moom ñépp ak moom jege si ñu ne leen jàll leen defaluñu leen test dara keroog ñoom rekk lañ bàyyi ñu dugg ci biir Arabie Saoudite defaluñu leen test seetuñu leen waaye ginnaaw ñoom ku fa ñëw dañ lay téye yi tegoon ne seen milliards yi am na système bu ñu ñëwee ñoom duñ fa taxaw ñoom lañ fa tiye ndax bi bàyyi duggee Arabie Saoudite toog lu yàgg gisul Issa Xarabi yu ne waa ana Issa Xarabi yu ñu ne ko ñu ngi ko téye aéroport am na fa ñett fan moom Baye daal wax ne ah ñun de amuñu dara waaye kenn teewuñu de looloo tax ànd ak yàlla rek a wóor Baye daldi gestu soxnaam ne ko ndax xam nga bés penc nan lay mel bëgg nga ma wax la ko mu ne ko waaw mu ne ko ni mu demee nii ñu ne ana Ibrahima Niass ak ñi ànd ak moom jàll leen mu ne nii rek lay demaatee bés penc Allahu akbar kon jërëjëf Baye Niass jëfee Baye Cheikh Mamour Insa jëfee Baye rabbil alamin borom yëf yi nañ ko bàyyeeg yëfam bàyyi moom moom mbir mi nañ xam loolu bàyyeekoo mbir mi ñëpp nekk ay taalibe ñépp seen njëriñ ci loolu la nekk sëriñ sëriñ lu amut njëriñ danga koy doon wala nga ñàkk koo doon mënoo koo doon nag bàyyi doon na ko ba pare te dootul am ñaareel bàyyi rekk ay sëriñ wax ne bàyyi rekk ay sëriñ waxaat leen ko waxaat leen ko baay rek ay sëriñ alhamdulilahi rabbi alamin baay ne téye moom ci li mu wax nee na ñeent ñoo war a téye yat ndax seen maxtaar ibrahim ñas daf ma yónnee benn kol mu ne ma kaala la ma ne ko man de ñemeewu maa sol kaala mu ne ma gis nga de man it sax mën na ñemeewu maa sol kaala mu ne koo gis ci jamono ji rek mu ngi kaalawu téye yat te te bàyyi nee na radiyallahu anhu mu ne bàyyi nee na téye yëpp ñeent rek ñoo koy def mu ne dof wala sàcc wala gumba wala borom jamono bàyyi nag mooy borom jamono kon nag moom rek a war a téye yat kon keneen ku téye yat fan la bokk ndax borom jamono moom xam nañ ko kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu bi nga xamante ne benn muxadamam bu mag ñu koy wax Cheikh Ibra Fall radiyallahu anhu mu ne sëriñ benn mu ne sëriñ benn chaise la woon te bàyyi toog na ci. kon palaasu taalibe rek a des. yàlla nañu yàlla def ay dëggi dëggi taalibe. Baay wax na radiyallahu anhu ne nekkal di ab sëriñ te kenn mënu koo doon ku dul moom wala nga nekk di ab taalibe walla doo doon dara mu ne nekkal di ab sëriñ te kenn mënu koo doon ku dul moom leen ne kenn mënu ko doon ku dul baay kenn mënu ko doon ku dul moom wax leen ko ku ko wax sa ajo fajo kenn mënu ko doon ku dul moom wala moom rek kay sëriñ mu ne wala nga nekk di ab taalibe mu ne wala doon doon dara kon nag palaasu sëriñ woy na kon palaasu doon taalibe moo des ak palaasu ñàkk doon daara palaasu ñàkk doon dara nag kenn bugg ko yàlla nañ ci yàlla musal kon palaasu doon taalibe moo ci des yàlla nañu yàlla def taalibe ci barke Cheikh Ibrahim Niass asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Ibrahim Niass jërëjëf Baye Cheikh Maodo Insa Diop